nag commentaire bi problème baax a baax yéen kër sëriñ ñu ngi Karamba tey waaw incha man de néew ma Sénégalais yi dama leen di jëlal coupe du monde de. man néew ma Sénégal néew ma Sénégalais yi dama leen di jëlal coupe du monde man ma leen dama leen di jëlal coupe du monde mais am na gëm-gëm bi ma lay wax nii bi nekk si man bu doonee cadre mystique Serigne mooy indi Sénégal coupe fii nii gannaaw yàlla suñu borom. sama loxo bi la tege. alors tey ma woowee si kàttan yàlla yàlla. dégg nga li ma la wax gannaaw man. su doonee coupe du monde yàlla suñu borom cadre mystique moo koy indi Sénégal mu ngi si loxo karamba bi mu téye. tubaab xamul football bu rafet bal si kan la xam. te loolu tubaab xamul xamul xamul rafet xamul xam. bal bi si kan la karamba xamul football bu rafet xamul moyen xamul mu xam. naa leen ko. jëf naa ko àdduna bi gis nañ ko. jëf jëfaat su may wax di wax si coupe d'Afrique di si kii wax bu yàggee day mel ni man damaa bëgg a dem boobu dem wala benn affaire. moo tax des fois ñu fi ñëw di ma seet si yëpp heure bu ñu ñëwee si côté boobu la ñuy dugg ak man. parce que wax nañ dëgg wax nañ dëgg parce kii xam nga parce que kenn owu ma. Mhm. owu ñu ma dañ maa woo. ba mu gën a nekk mooy ñu wala mooy fi nga xam bu ñoree. voilà mhm. tey Karamba macha allah comme li wax si Coupe d'Afrique yaakaar naa gis nañ ko. Euh, macha allah tey ñu ñëwaat rek ci euh, kare euh, li nga xam ne classement bi Aliou Cissé def. Mhm. tey yaakaar naa gis nga ko macha allah. Sadio Mané blessé na. mais teewul boole la ko parce que moo yaakaar mën a dem ba ci euh, dernier match yi wala ñu fubal ñaari match mu ñëwaat tey blessure boobu tey dañ ci dañ ci laaj lan nga ko gisee tey gisoo ko avant wala aussi Aliou Cissé loolu ay sarax yi waroon a génn la te génne wuñ ko. Mhm. ay sarax yu ñu waroon a génne yàlla moo ko dogal nag mais am na sarax yu ñu waroon a génne te génne wuñ ko. xam mhm. nga am mhm. na. ay sarax yu ñu waroon a génn la te sarax yooyu génn mais yàlla moo ko dogal li li ma koy ñaanal daal mooy Sadio Mané dara waroo ko daal parce que peuple Sénégal dañ ko yaakaar ñun ñi ñëpp dañ ko yaakaar ci football bi comprendre mm-hmm. kon dara waroo ko dal li ko dal su ma ko mënoon a récupérer man mu dal na moom mu dem man ma récupérer ko Sadio Mané li dal Sadio Mané man su ma ko mënoon récupérer man mu dal na Sadio Mané dem football yi man man mm-hmm. billaay wallaay taala pour nga xam ne Sénégal man maa leen gën a bëgg. équipe nationale bi. mais am naa droit li may wax ma wax ko. la si nit man kenn si dara. waaw loolu kese la. macha allah dégg nga li ma yaakaar naa daaw ma yaram. Euh, tey bu sañoon tey jël blessure Sadio Mané moom mu nekk ci tànkam tey Sadio Mané dem ko wari loolu mooy bëgg Sénégal loolu mooy bëgg sa réew kon jëmu ji ñëwul pour ne jëlil ma fu mu dem Qatar wala li bu ko nekkee dem Qatar paasal boppam defal lépp mais boobaa tey yomb tey euh, tey Karamba. mais mën naa dem seetaan dama yow. su loolu. surtout man waaw ma waxuma damay liggéey rek waxuma damay liggéey rek mën naa toog fii ba Sénégal commencé coupe du coupe du monde. waaw ah, yow dañuy soxla ma dara ma dara waaye ma dégg sama benn affaire su ma neexee dem Sénégal am nga droit dem Sénégal dem ko fa Sénégal. kan la gars yi defee am naa droit. Mhm. même bu ma gars yi kii man am naa droit su ma neexee ma ne am na dégg nga li ma la wax su ma neexee léegi sama nekk si. am naa droit ma dem Sénégal. Mhm. comme ni ko gars yi defee comme comme yenn joueurs yi ni ñuy def rek comme joueur boo xamante ne tey yow footballeur ma def stade seetaani match ñaata yoon ngeen koy gis mhm. da ngeen koy gis ñu koy wane mais dañuy xam ne kii sër la mais donc si équipe bi la nekk sax li footballul am naa si droit am naa droit ma dem Qatar seetaan yi n'est-ce pas parce que xam nga ow ñu ma mais am naa droit man ma dem toog comme gars yi dañuy seetaan man. li ngeen sama visa man dem sama yoon. xaw ma visa la xaw ma xaw ma lu muy laaj. voilà li ñu gis aussi loo waxoon ci góolu équipe nationale yaakaar naa nga ne bu ñëwul def li nga xam ne mooy ay sagatam après bu delloo euh, dina encaissé bi yu bëri mais ni ko waxoon aussi loolu la demee Karamba lan mooy secret Karamba ci football ba lu mu wax rek am. waaw loolu maa leen ko waxoon góolu Sénégal xaw ma sax turam pour nga xam ne man mm-hmm. man maa ne leen woon te bi ma ko waxee ñaata weer laaj léegi. ma ne leen bu ñëwoon fii sangatu barki Serigne Fallou dina sell ba mel ni tamit te juguma si man maa taxawoon man leen Mouhamed Salah man maa ko téye man xale bu ndaw. waaw mënul dugal mënul def dara. jour bi ma taxawee dama koy bàyyi bi ma ko bàyyi bi mu xëyee ñaata ban la dugal. dugal dégg nga la dugal football dañ koy man mais ay wax ay ngaña ngaña déedéet. di ko courtier voilà. Mm-hmm. football kenn du ko courtier football kenn du ko courtier. Mm-hmm. te bu ma benn se bu ma benn sëriñu courtier oo watim en direct laa wax. sëriñ sëriñ bu ma woowati di ma wax si wàllu football pour courtier ma dinaa dinaa jël sa photo ma weer la ak sëriñ boo mënti doon bu ma benn sëriñ woowati. ñu daal woote bi nga bëgg mooy. woo ko jógee ci Macky Sall wala man bañ naa man bañ naa ko ba équipe bu ma yor yaa xam champion la yaa xam équipe bu mu mënti doon man équipe ma wax ak ma wax ak ku dul président. Ah. man équipe dama wax ak ku dul président man lépp lu ma dugg soxla. ma soxla wu ma intermédiaire soxla wu ma courtier man équipe du ma wax ak ku dul président. su ma nit ñi woon ne man man wax ak yow man équipe du ma wax ak ku dul président. man président laay waxal. waaw ak Oudé Karamba ñu gis ne macha allah aussi sa sa naataango sa xarit euh, je que loolu laa xamee. parce que gis naa barki démb Adamo def li nga xam ne mooy appel à Touba def leen euh, ñett ngeen euh, di waxtaan Instagram xaw ma t muy ki nga xam ne mooy Mara Niass yaakaar naa Mara Niass bu bëri waxoon na ko fi lépp lu wax rek yaakaar day am waxoon na fi Sadio Mané bientôt euh, xool leen ko dina am problème tànk yaakaar naa mu ñu am am na lu waxoon aussi lu bëri loo xam ne am na ñu gis keroog ngeen def réunion def benn live yéen ñett seen diggante ak Mara sa diggante ak Mara Niass te kan moo ko kan moo kan moo ko créé aada moom moo créé loolu mhm. parce que yaakaar naa jour boobu lay la ñuy soog a wax maam moom Mara Niass yaakaar naa jour boobu la ñuy soog a wax maam moom mhm. parce que xam nga bu dul woon loolu xam naa dinañuy xaw parce que man man li may doxee la mhm. man bëriwuma ay xaritu sëriñ. Mm-hmm. bëriwuma xaritu sëriñ parce que ndax bëriwuma xaritu sëriñ. Mm-hmm. parce que man jinne ma àndal dañoo siis. Mm-hmm. dèjà jinne ma àndal dañoo siis. moo tax bëriwuma ay xaritu sëriñ. barke Serigne Fallou Mbacké moo tax du ma dem fenn sama kër rek laay toog. mais keroog ñu gis macha allah ngeen doon tey euh, mosu leen déggante keroog ngeen déggante waxtaan bi ngeen tey yan kàddu nga ñu a jox ci Mara Niass loo xam ne jikko boo xam ne jël nga ko ci message boo xam ne tey vraiment frappé na ci moom. ak dal rek man xam naa ni mu dal la parce que keroog dem naa ba ne ko yow sa diggante mhm. mu ne ma bu ku jiitu la ñuy man ka ah de baaxul loolu kese la mhm. gis nga daal gis nga daal ku baax la. waaw nit ku baax la moom. Mhm. nit ku baax la. wax dëgg yàlla. c'est la première fois jour boobu la ñu soog a lay soog a déggante naa ko tooñ ko sax ba ne ko bi laa bëgg nga. may dig na ma téléphone am bi nag dama ko jox. lu mu la dig kaw la wax dëgg ko si nu mu gën a gaawee. man maa ko jël ci loxo Marañas maa ñëw jël téléphone bi. ànd a yow dama ñëw la ñëw bi sax. téléphone bi lay yàgg indil ma ko ba fii Marañas moom moo may indil téléphone bi moom moo ma ko dig. taalibe Serigne Saliou la. lu mu dig a def ko. Serigne Saliou. Mhm. ku ne xam nga ne lu rëy la def mu. Mhm. kon bu jëlee la def ko fii ne am téléphone du dara. est-ce man su ma neexoon suba jënd téléphone. wax wax ko ci jënd téléphone téléphone 3 mm-hmm. mm-hmm. jënd ko mais. des fois day am geste yoo xam ne a rafet. geste noble waaw day am geste yoo xamante ni day maanaam luy rafet la quoi parce que dañ lay may du dara mais maanaam day doon loo xam ne lu nice lay doon quoi parce que après yooyu day jur yeneen affaire yooyu waaw. comme ni comme ni mu demee maag saa Touba rek. saa Touba waaw waaw. ndeysaan tam li sa xarit bi te lépp yaakaar naa ngeen bokk kenn Wally Ballago Seck ñu gis Adamo def loolu yaakaar naa Karamba ki mos ko gisee laaj wax benn sëriñ parce que xam nañ Karamba qualité am ak fullaam macha allah comme ni nga wax ak sa jinne yu fiir yi macha allah mais tey Adamo def loolu tey lan sa diggante Adamo man miin naa ko. Mhm. parce que à chaque fois damay live miin naa live te à fois. ba nee naa ba su liggéey maa man média laay liggéey. mais live ak ay sa morom sëriñ wax. waaw LIFS loolu du programme wuñ ko de. Mhm. Adama woowu ma néew ma parce que diw de wala wala dara. ñoom man maa leen njëkk a dugg. ok mhm. man maa leen njëkk a dugg après si. Mhm. xaw ma dañu ne non man maa leen njëkk a dugg si wax dëgg yàlla programme ma lool man maa am envie. Adama sama sama doomu nday la sama lëb la muy live ma ne xaaral ma dugg si am naa droit waxtaan ak moom parce que bu dara. daf maa bëgg xam nga daf maa yéene jàmm daf may conseillé yu bari yoo xamante ne daf may conseillé sama nit la xam hmm. ba ñëwee tamit dugg woote yàlla jaara fi ñooñu ma xam ne loolu kese la. man a wax ko ci. aduna Sénégal yëpp nañ la xas mais na la sa yaay ñaanal te yaayam ñaanal na ko. yaayam ñaanal na ko Adama yaayam ñaanal na ko kon maanaam lépp lu muy mën di def man sama gaayam la. Mm-hmm. sama doomu ndey la sama lépp la. Mm-hmm. comprendre nga sama gaayam la sama doomu ndey la sama lépp la li ma ko ñaanal daal mooy yal na ko yàlla guddal fanam may ko wér may ko ay xéwal yu bare bare bare mu am daraja daraja ji mu am du ma ne sax mu am daraja ji mu am mm-hmm. yàlla gën ko koo yokkal. Adamo bu ngeen xoolee day saaga. Mm-hmm. am ne ñu ngi fi am na ñoo xamante ne ñu ngi fii Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi Sénégal fii saaga wuñ defuñu ko Sénégal. nit ku nekk ak li ko yàlla may ak natt bi ko yàlla di teg. Mm-hmm. kese mm-hmm. koy nangu. nit ku nekk ak li di may nangu natt nit ku nekk am na yàlla moo la koy nattoo man maa ngi nii ñaat sëriñ da ngaa gis sëriñ bu théâtre boobu. amul yor naa da ngaa gis sëriñ buy fecc. sëriñ bu sëriñ buy fecc fecc. gisoo ko. karamba rek waaw nattu la. yooyu yëpp ay nattu la da ngaa mos a gis sëriñ buy fàcc kii di saaga ak man yi may def gisoo ko mais yëpp ay nattu la yoo xam ne yàlla moo ñu ko teg te ñun dañ koy nangu. Hmm. loolu kese la du daa. lan ngay wax am na day wax. maarañaat bu bon toujours. ñooñu du ma ak ñoom. du yaa ñoom. déedéet. Hmm. ñooñu man ñooñu du ma ak ñoom ñoom fi ñu boo ko yokkee yokkaat ko yokkaat ko yokkaat ko yokkaat ko yokkaat ko fa laa di dem. mais moom nee na am xam-xam ne. non amul xam-xam parce que du ma ko xeebal li mu yor mais xam naa ne naa ne fii Sénégal ñi ma maaseel jamono ji fii ñii xëccoo wàllu xam-xam yëpp Karamba mooy seen bàyyi. ni mu doone seen bàyyi lan la xam-xam la lay won da koy filmer en direct àdduna bi di ko seetaan loolu du ko wax dama lay bàyyi soo amee jot suba nga def si micro tey fi may daaneel mooy xam naa sa diggante ak Wally Ballago Seck gis nañ nga macha allah ci euh, ay euh, lu bëri Wally Ballago Seck gisatul na ci sa diggante ak Wally Ballago Seck lan dafa la. non Wally Wally sama diggante moom su ma soo maa ko bëggal sama te man à chaque fois damay doxee benn game boo xamante ne tey lu si dëgg mënatu la suñu ay fen. lu suñuy dëgg mënatu la suñu ay fen Wally maa ko bëggal sama bopp naa la. xam lu may xaar moo war a ñëw dëgg fii soirée Mbour nga gis doy waar Wally Seck laay xaar moo war a doy waar soirée bu bala mu baax technique loolu kese laay ñaan boobu laa koy jàllale nañu may benn soirée waa Mbour soxla nañ ko instant bii Mbour gars yi namm nañ ko Wally Ballago Seck Wally man Karamba maay bi le Messi des Dine le Messi. la mara du peuple mooy waxaat na centre du peuple Wally Seck li ma leen ñaan lan la waaye dama nga ñëw may waa Mbour soirée bu rëy laa bëgg nga may ko waa Mbour parce que waa Mbour soxla nañ ko waa Mbour namm nañ la waa Mbour instant bi daal waa Mbour mën naa ne seen yaram mu ngi xasante Wally Seck lay laaj te lii ma lay wax ni Wally boo message ngir yàlla ak jëmmi Serigne Fallou na nga fexe loolu ko Mbour bis ko defee Mbour di nga kontaan sama man man dinaa kontaan te xam naa ne yow sa xol dina sedd te loolu laa lay def ko incha lu yàggul dara waaw. Mm-hmm. yàggul dara ok sëñ Karamba ñu bàyyi la nga tàggoog askan bi tàggoog li nga xam ne mooy Sénégal yi mm-hmm. ak tey euh, lan ngay conseillé tey euh, a dem fële ca waaw li ma leen yàlla na yàlla may ndam rek ak ànd ak dal rek ñi nga xamante ne tey ñoom dañuy dem yàlla na leen yàlla may ndam parce man man bëgguma da ngay gis ni nag sama laa man bu réy bi ak maa bañ Sénégal am defet sama làmmañ bi li muy réer noonu laa bañee Sénégal am defet man man man bu dul Sénégal sax man man bugguma defet bugguma defet Sénégal kenn kenn kenn bañul équipe nationale bu Sénégal parce que ñun ay Sénégalais lañ mais xam ñan la gars yi ñan la gars bañ hmm. ñi ngànk équipe bi hmm. kenn du ko bañ jikko moo la dul neex hmm. gars yi seen jikko moom baaxul parce que seen jikko dafa nuru mafia te jaayuñu doro <laughs> est-ce que dégg nga wax bi ma lay wax équipe nationale bi ñu ko ŋànk seen jikko dafa nuru mafia te jaay ñu dorog man maa ko wax maa tey hmm. tous ku ci man tegal na ñebe boo ko indee dama koy yëy dara du xew nañu xool ni ñuy def li ma leen di dénk loolu la ubbi monde waxi kese jëlu ko xabar xabar jëlu ko dem wax fii jëlu ko xamal la nu ma koy jël gàmm yi nii ñi metti ñi leen ko teelu en tout cas man Karamba maa ngi toog di leen xaar te xam naa bis bu ñu jaaxlee dinañ oo seen baay loolu laay tàggatoo. Oh. Karamba heure bu ñu jaaxlee dinañ jëlaat seen téléphone ñu oo seen baay te bu boobaa ki ma njëkk oo moom. ki ma njëkk moom xaw ma dinaa la wuyu xaw ma du ma la wuyu moom mais bala ma laa uyoo dinaa demoon du ma dem moom dinaa la saaga juróom-ñaari saaga yoo xamante ne benn bu si nekk du bokk ak moroomam ba pare ma soog laa wax damay dem wala dem. loolu mooy bu ma kenn woo. dégg nga li ma la wax xaw ma ko may woo mais boo ma ci waxee man des fois damay wax mais après sama xol day laaj. Mhm. Ilaah xool sama baaraam bi mënul taal. liggéey di ngaf ngaf yi maanaam golo bay na. baabul ñëw dund Sénégal noonu la golo bay baabul dundee. golo bay baabul dundee kese la ñuy def loolu pour lan. pour lan pour lan pour lan pour lan ñoom ni ñuy doxee nii ñu yaakaar loolu mooy indi coupe du monde barke allah ji faam loolu indiwul coupe du monde Sénégal. yéen sëriñ yi wax yëpp gars yëpp dañuy duul rek ñi naan ay lii ay defal lii ay yooyu ñuy wax yëpp amul dara amul dara lu ñu waxagum si coupe du lu si bokk lu jaar yoon gisaguma ko man hmm? sëriñ waxu ko Sénégal maa la ko wax sëriñ waxagul wala sëriñ defagul loo xamante ni mën na déplacer coupe du monde gisaguma ko man du sarax bu nit wax du lu nit digle du dara barke allah faalu gis saraxu ndel sama sama de Saliou joxe na saraxu ndel sa yaay déggoo li ma la wax sama yaay la sama yaay la mais ndel indiwul coupe du monde Ablaye Wade boo ko indi woon boo boo tegle woon Sénégal ñëpp boo leen defoon Ablaye Wade barke allah ji faalu indiwul indiwul coupe du monde Sénégal hmm. jëlee Sénégal yëpp nga def leen suñu maam Ablaye Wade ñëpp watu nen nga toj si nen déggoo li ma la wax bu ñëw si watu nen bi ku si nekk nga jël ko ñetti nen hmm. taxul coupe du monde Sénégal kur bi si gémmañu gaynde la nekk du ay wax ay média yi moo koy indi da nga koy jëf lu ñuy jëf la lu ay wax dañ wax ji bala ngay um seen bopp hmm. Sénégal na gars yi wax ji bala ñoo um seen bopp gis nga cat lu nekk man nañ kaa faj ba mu des cat li nga xamante ne yow yaa fa cat sa bopp hmm. Hmm? waaw nañ moytu loolu Sénégal na gars yi moytu wax ji wax ju ne cat lu ne man nañ kaa faj ba mu des cat bi nga xamante ne tey yow yaa cat sa bopp kan moo la koy fajal nañu wàññi wax ji ñu ngi wax rek ñu ngi wax rek ñu ngi wax nañu wàññi wax ji wax ji indiwul coupe du monde Sénégal te lépp lu ma wax si émission bi bind leen ko lépp lu ma wax si émission bi amul dara lu si dem vaar. kon de ministre ministre bu bees bi war naa war naa fagu de. Mhm. barki Serigne Fallou Mbacke li ma wax si émission bi amul dara lu ciy dem vaar barki El Hadj Fallou Mbacke bii. billaay wallaay tallaay barki El Hadj Fallou Mbacke li ma wax si émission bi amul dara lu ciy dem vaar tous du si dem vaar. ki taalibe sëñ Fallou bi la te chaque jour man leen bopp bi lay waxee. Mhm. chaque jour ma ne leen bopp bi lay waxee. Mhm. te li ma leen di wax loolu mooy am. Hmm? Sénégal ñu ngi foyee lu ñu ngi foyee ñu ngi foyee lu rëy. Sénégal ñu ngi foyee lu rëy si loo xamante ni ñoom ñoo koy def seen i biir comme ñu mel ni garage Italie dal yenn seen ba jaay war a dem yéen a ngi foyee loo xamante ni tey tey imaginer coupe du monde ni mu jafee. Hmm. Hmm. moom la moom la ah. Baye li ma metti rek ba tax may may may waay ma metti ba tax may saaga. man li tax may saaga. Hmm. Baye coupe d'Afrique ni mu jafee waxuma coupe d'Afrique waxuma la coupe du monde ni mu méttee loolu ay waxi kese indiwu ko. Hmm. ay waxi kese indiwu ko gars yi dañ bàyyi seen duul yi. ñu nar a sacrifié pour sëriñ bu dàqal du boobu lay nar a sacrifié hmm. sëriñ bu dàqal duul sa morom nga ne kii duul la ngeen man seen ngandi tuun. da ngeen a yaakaar coupe da coupe coupe coupe coupe du monde bi ay wax kese ku nekk yaa ngi toog micro yi dal la ngay fen rek loolu dafay indi coupe du monde te barke Rasulullah ba ngeen xam ne loolu indi coupe du monde toog leen ngeen yor ngeen yor seen i bët toog leen ngeen seetaan yéen ñëpp ngeen xool tuurkat yéen ñëpp li ñuy wax nii yëpp dara du si am tous. Hmm? Karamba le Messi le Messi le Messi le Messi le Messi borom Sénégal. Djiné hmm? Faye Djiné Bemba. jinɛw jinɛw bɛnba karama karama de jinɛw fa jinɛw bɛnba. Daywa. Hmm. Ni basili bi joli bi karamba. Sai sai karamba. man de ne ma xamatuma lu may wax commentaire yi xamatuma lu may wax instant yi dafa tàng xamatuma lu may wax. Hmm. ñoom li ñuy daw di daanu yëpp. mu ngi sama loxo bi mhm. Sénégal li gars yi di xëccoo yëpp li ngeen di xëccoo yëpp li ngeen di daw yëpp mu ngi sama loxo bi maay xool maay xool nu ma neex ma doxalee ko man Karamba soo leen defee lu leen neex après man ma def lu ma neex maa tey parce que loolu ngeen bëgg di dox ay doomu raam ngeen yéen yéen ñenn ñooñu may waxal maa ko wax maa tey loolu lay tëj sama émission doy na waar mu ngi noonu man mënut ma wax sax ak Karamba wax dëgg yàlla parce que dafa wax fin bi nga macha allah mu ngi aaru yaakaar naa waaye nag xolam moo rafet saa su ne li mu wax rek toujours rek mais dara waa daal xamatuma ko mooy wax parce que émission bi dafa laa daw parce que man xamatuma mooy wax daal barke sëriñ Sénégal dañoo du ma ne sax Sénégal dañoo soxal su ma ko waxee après. ñenn ñii ñëpp dañ ciy bokk mais Sénégal ñu baal ma si kàddu boobu jàll Sénégal dafa bëri nit ñoo xam dañoo soxal. Mm-hmm. parce que bëgguñu champion. Mm-hmm. buñ la xoolee ngay champion tey buñ la xoolee buñ la xoolee ngay champion dañu xool luñ la pakasale. pakastal boobu yow doo pakastalu de peuple entier la ñuy pakastal hmm? te gis naa gars yi lonku gars yi galgal bu mag hmm? waaw galgal bu mag buñ lonku si équipe nationale bi gis naa ko man allah akbar te buñ ko lonkatiwul jël la bindal filmel si nag direct barke Serigne Fall barki Alaaji Fallou Mbacke mais leen ma may leen ko gis naa galgal bu ñu lonk si équipe nationale bi te buñ ko lonkoortiwul jéem la man naa ko waxaat jamais va tous bind leen boobu top 5 laay